bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin bokk jullit yi bokki taalibe yi murid yi ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci ndégalu Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi toogee jotaayu Sëriñ tey ci ko suuf di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd biir ba mu àggale mboolem mébét mébét ak naan yi nga xam ne dara génn ci lislaam dara génn ci liggéey Sëriñ Tuubaa ndax ku ko gis démb gis ko bërki démb xam xaala bi mu toll yow sax danga koy ñëwantu ba da ngay fàtte lépp foofu ngir itteel gi mu ko itteel bërki démb ci guddi keroog bi fi ndawal nguur gi di ñëw maam Thierno Sëñ Moussa Bachir la yónni ne ko demal toogal ma fa bu noppee rek lu mu guddi guddi na nga ànd ak Bachir ñëw fekk na fii ndax lii mën a toxar ñoom ñu guddee ma yërëm ko ci coono bi ma ne bu ma xëyee rek ñëw ba mu agsee ci la ndigal lii juddoo ma fekk na sëñ bi xam naa ko bu baax fekk naa ko ci xaal boo xam ne génn naa ko gisoon wallaahi ngir yërmaande ak yërëm gum yërëm nit ñi ba àgg cëpp kon dañ koy ñaanam mu yàgg fi te ànd ak ndax waxtu woo ko ñaanalee dinaa la man de sama dund doyuma ko dara lu may liggéey Sëriñ Tuubaa bu ma bu ma mënti liggéey Sëriñ Tuubaa rek jër suma di fi toog kon moom fa mu toll ku ko xam man nag am naa tuuti tawféex ju ma yàlla xamal ci moom waxtu ne dama naa leen mbégum Sëriñ Muntaxaa moo ma gën a meram li may sedd sédd sedd ci boppam du ma jooy moom ci xalaat bala ma ko wax dara dama naan ko bu ma laajee ci mbir dama naan ko jox ma sa xalaat ba noppi bu joxee sama xalaat bu ma amoon junni xalaat ma bàyyi ko te xalaat it ci la ndam dund naa ko dundati ko moo tax lu mu doon dama naa ko jox ma sa xalaat ba noppi bu ma joxoo xalaat dama door a génn xalaat te xam naa ne loolee ci suñu tubaab lay jóge lii nag yàllaa ko def suñu borom moo xam li muy def ci ay dogalu ak i nattoom Serigne Touba bi mu fi nekk nattu daana ko dal nattu bu rëy boo xam ne kenn attunu ko mu dékkul ko ñëpp dékkul ko xeeb yëpp Serigne Saliou daana nett mas naa dégg ci làmmiñam mu wax ne bis di am na koo xam ne daa yërëm sëñ bi ci nattu bi ndax diis ne ba sëñ bi mënta ju fi mu tëdd loolu waxtu julli mooy ca te ñoo tegge woon nattu bi teg ko ci teg ko ci woon fi ko xalaat rek daanaka moom bakkanam fekki ko ba suñ bi jógee ñu wax ko suñ bi ñaan moom day dafa bari solo waaye lii de lu toll ne daratu nit attan ko ci kon ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa war nañu xam bu baax mooy kan ak li mu doon rawat na moom ñu fi nekk nit nag dafa baaxoo lépp lu muy jamonoon toll ba ci yonente yi ba ci sëriñ bi ñu nekk moom si njariñ ñii di ñu xalaate ñii di xalaate ni doomu aadama bi noonu doomu aadama li fi mu ngi jàkkaarloo dara lu loolu rëy rëy rëy day mel ne day fàddu bëtam waaye Cheikh Mahmoud Mountakha ku ko xam ñoo ko xamoon suñu saay dootari ñi wàññi ko bu yàggut nekk naa ci moom mu ne kër Sëriñ Mor Mbay Siise ba nëgg ni ñii la ma xam lim toggoo ci jaamu yàlla lu mënoo ko fekk wenn waxtu te fekkoo mu yor téere bi di jàng bu yoru téere bi di jàng ma ngi ca dayre loo xam ne ñun ñi ñun ñi di gone attuñ ko yitteem kawe na kawe goo xam ne néexutu natt waaye li muy fonk fonk fonk jaamu yàlla di taxaw guddi li muy wàcce ci alxuraan nooru daal di nekk xasida yi kenn xamu nu toll wër sa mën a ànd ak nit waaye li loolu di rëy rëy rëy lu nit ñi bari bari bari lépp da koy dégg te di ko lijjanti kon moom doo ko boole lépp kilifa goo xam ne ñëpp ñu ci ñaan ndax kuy xool da nga xam ne kilifa gu mel ne suñu taxaar boo ko war a xool ci àdduna ah man de xaw ma ko kon nag war góor góor bu baax te jéem a njëkkante walaayka yusaaruuna fil xayr am na ku ko fi wax léegi wa fii saalik fa yatanaafasi mutanaafisun njëkkante gi mooy jéem fexe ba njëkkante def def def lu baax ci ndax moom kat li ko waroon ci kilifaam yëpp waxuma la sax njabootu suñu tubaab yi waaye sëñ Moussa Bassirou magam rek ni mu ko doon tërbiyewoo ñun ñi kenn defu ko ci moom mooy sët Sëñ Tuubaa bi njëkk a jiite doomu Sëñ Tuubaa ginnaaw kon loolu moom taw fi xam nit ñi dañuy fàtte wala lañ du teewlu waaye Sëñ Muntaxaa te bëggul dara boppam amul dara boppam Cheikh Ibrahima xam na ci dara lu ko nit indi lum rëy rëy mooy yóbbu ko ci yëf Sëñ Tuubaa nanguta moomal boppam dara ci àdduna kon nag kilifa gu mel ko kon war ngaa xam li nga am lu mu doon te lii ab soññe rek la ndax fat sant sax laay wax ndax soññi amatu ji ndax ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa la si suñu bilaad waxoon dañu ko jàngaloon ngir bëgg ñuy xam fi ñuy def suñu tànk dafa waxoon ne Sëriñ Tuubaa de ba mu xamee ne bi muy liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam neen dafa bokkoon ci pàggutéefam li ñuy tuddee xutbaane yi xutbaane yi bu mu génnati njabootam neen bokk na ci pàggutéefam mu ne nag ba mu xamee ne amul kenn amul ñaar te te yor mbooloo lim yor mbooloo la mënu ko jox kii bàyyi kii neen dafa dajale lépp def ko ci waxande waxande wi nag mu dafa am kanaar mu jël ceeb ji tokk teg ko ci loxol ki jiitu ki mag ci njaboot gi mu ne gaal gi nag li muy bari bari alal njaboot gi ci nekk kon ki jiit ki ne ci kanam na xam ne alal li njaboot gi la kon kenn sañu ko ci alal te jox ko ci waaye njaboot gi nañ xam ne kenn mënta ubbi gaal gi te jaaroo ci moom mu ne jotaay boobu nag li muy rëy rëy képp ku suñ tubaab tànn ba teg ko fa du ko mate mu ne bala faa bala bala bala bala la fàttali rek dana la peeseeg bindee fi bu la peeseeg bindee fi buñ la watee mu dooleel la ba nga wat leen daane bu boobaa nag boo xasee ba doon lépp loo xam ne balaa la buy wàcc ci buy wàcc ci kaw suuf balaa wàcc ci nit ñi day wàcc ci jëmmam mu yon mu yon mu yonu ba diis la jël suñu doon ko séddale nit ñi mu ne waaye lépp luy yiwu yàlla buy wàcc day wàcc ci moom mu jël ca ba fees dell mu door tasaaroo ci biir kon nekk di suñu tubaab loolu waxi suñu bi daata kon nañ xam bu baax li nga xam ne moom lañ am lii nga xam ne moom la wax barki démb bi itam joxe ci digal sant ko ñetti kuréel yi mooy waa euh, Touba ci kanam waa Hizbut Tarqiyyah commune Touba loolu xalaat la boo xam ne sëñ bi 2021 ba mu jugee ci xalutu bi da ko njëkkoon a xalaat boo sax genoon naa yaatu ndax mu xaddamu xidma ca la bokkoon raw doolu yaaxi ca la bokkoon am na yeneen daayira yu ci bokkoon moo ko bindal boppam suñu Ahmadu Badu xam na ci dara suñu Musaa Jataa xam na ci dara ba mu génnee ci xalutu ba rek la xalaatoon da koy dajale ginnaaw bi la ci soppikuwaat kon bu mbir mi xawaatee yàlla def mu joxewaat ndigal yàqut benn daayira bu ci ne la nga waroon def soppiwu ci dara kenn ku ci ne nag kuréel gi nga yàqu ci waaye nag ak taalibe moom la sëñ bi daal daal wax sëñ daal daa wax ne ak taalibe xel mu dafa jëm xel xel xel mu dafa jëm ca suñu yi daan wax ne ak taalibe am xel du ko womat ndax nit bu fekkee da ngaa ñëw gis bi jaayante bu suñ bi xasee tànn wala mu xalaat amatu xalaat bu dee murit nag bokk ndax wa ma huwa salabul ixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari loolu suñ bee ko waxal boppam salbul ixtiyaar mooy bu suñ bi xasee wax amatu xalaat te alxayru fii maxtaaruhu muxtaaru laa fi lisi nufusukum taxtaaru liy jógee ci suñ mu xalaat ko rek mooy li ñuy jëriñ waaw am na feneen fu mu ko waxee ne ne ne ne fal isnu chartun fii xabooli chani kon laa tafalu shay'an bi xayri isni fal isnu shartun bi xabuli shay'an lu ngeen def rek na ca ndigal jiitu bu ca ndigal jiitu lu xalaat yi rëy rëy rëy tubaab ñëpp xalaat barke du ca ne kon lii ndigalu sëriñ bi moo ci joxe tam itam mu ci joxe ndigal moo na caayam bu joxewoon ndigal yéen ñëpp kenn ku ne da ngay wax say compte joxe ndax kenn ku ci ne yaa ngi ci ndax bu dee waa Tuubaa ci kanam defar nañ assainissement ba tey sëñ Yuusu mi di mujj sant këru xas di képp mën na ñetti milliards te yàqu seen addi 500 millions sëñ bi daar kami commune bi guddi bi ca ñenca kon kenn ku ci ne bu ma ko sontoon nga dem waaye nag nañ xam ne mbirum sëñ Tuubaa menn mbir la wenn yoon la benn bëgg-bëgg benn kàddu la mooy sëñ Muntaxa keneen amul man mi awuma keneen amul sëñ Muntaxa kon nag loolu bu ko ñëpp déggee noonu te mooy li war dafa am sama kilifa bu baax doomi suñu Saliou daa wax ne pouvoir boo xam ne lu mu rëy rëy rëy bu la boree ne indi sama caabi doo doonante dara loolu du pouvoir kon pouvoir pouvoir amul benn pouvoir mooy suñ mooy mooy mooy mooy ki fi nekk suñu Tuubaa loolu lu ñu délégué man si nanguma ku ma délégué dara moo tax jëf yii sax bugguma ci dara lu jaar ci man Cheikh Mouhamadou Mountakha bu ko neexoon ndax nit ñi li tax man la ñaa soññëw ma damay sant démb ci biir lañ ko jox démb li fi ñëw kenn xamul nu mu toll. li fi ñëw ci siñ bi kenn xamul nu mu toll ngir noppal nit ñi ndax ñu ceeb murid yi moom dafa am loo xam Sëñ Tuubaa ko def ci ñoom man mii li may nekk nekk seen kanam Sëñ Tuubaa rek keneen doy ku ci am la la gënal sa addiya sëñ bi nga ko yóbbu dimbal tey yëg naa ñu bari woon nañ ma ña ngi yóbbu seen addiya ñee nga dajee seen addiya di ko yóbbu sëñ bi ubbi nañ compte waaye la leen gënal mooy yóbbu ko sëñ bi loolu yoon yóbbu boo laajee daayira yi sax dañ la ko wax dañ naan la daayira bu ñu wootee bu bu nee suñ bu ubbi dañ naan nañ ko xaar waaye nag ngir jàppandal nit ñi ngeen xam ne ñëpp mënuñu àgg ci moom ndax boole na ñaari liggéey daayira Sëriñ Tuubaa yi màggal ba na gën ubbi suñ bi day ubbi bu ko bëggee boole di jël lii te suñ bi lii nag bëgg koo jaxaseeg kon Sëriñ Tuubaa ndax nee na day liggéey bu rëy ndax xam na nit ñi sonn ndax ku gis ci télé bi quartier diggante ay kër ñaar ngiraane nag ngelaw moom foofa yow si jëm boobu doo da ngay fàtte suñu boppam ndax ay mbedd mbedd mbedd mbedd mbedd mbedd yoo xam ne lu kër rafet rafet ndox ma nangu na loolu liggéey bu rëy la kon la gën a jàmp mooy fexe ba xëcc ndox mi génne ko ak dimbali ña ca ña fa li li li nit ñu dajale it sëñ bi da koo ber dugal ko ci kon sëñ Tuubaa bi la fa ñëw ci moom da koy dajale bu noppee kër yooyu mu bëgg a def ci la koy def. jëlaat jëlaat addi ba fu mu dolli ci kon loolu rek kon nit ñi moom soññuñ leen la suñu saa yi doon wax naan joxe bi daal jiitu na waaye lii itam ba kaddu si bi yëkkati ko rek buñ la doon wax nit ñi lañuy joxe sax da nga naan mënti nekk ak fi jamono toll ñu door a jóge ci màggal démb ba tey li fi ñëw kenn xawul mu toll ñi ñiy daa bare bare bare maa ngi indi maa ngi joxe 40 millions kii nii maa ngi joxe 10 millions kenn xawul mu kon loolu. dañ leen di sant cant di kon monsieur Abdou Lahad ñu ngi lay yóbbante ci suñu abibu mi nga xam moo jiite daayira Touba ci kanam ci seen yitte ak seen taxawaay ak seen posture boo gisee léegi man la jiiteel damaa xam xaal bi nga toll ndax man xam naa la moo tax xamantu moo def waaye juróom suñu abibu dafa dund ak Sëriñ Tuubaa lu yàgg ci sama ma dégg bari lu may nett Sëriñ Tuubaa ci moom laa ko dégg waxuma la ni mu demee sëñ bi ak maamam muy sëñ Mbàkke Kajoor ak ni ko sëñ Tuubaa ay am woon ak ci diggam ak moom ci lu xóot loo xam neexatu wax ci wax mbooloo wax juróom boo ko bañ ko bañ ko jébbal sëñ bi ca ñoom laa dégg sëñ bi da ne ah yéen de xanaa da ngeen ne kii rek waaye jëru ko ndax jébbale nañ leen ñëpp foofu rek ci moom kon sant ñu suñu équipe bi suñ maam moo itam yow mi nga xam yaa yaa jiite daayira bi nga jottali ñëpp seen cant ak seen gërëm seen positif seen taxawaay sëñ Yuusu yow itam ñu ngi leen sant bu baax ndax baat bi leen sëñ bi de wax naa la ko démb baat boobu génne moo ko suñu taxaw coow moo doon ko seeral ne yenn dana istar xëy dañu ñooy soldaar yoon wi loolu soldaar na xam nga ko mooy ku dul amu tànn mooy ku xalaat mooy lu la wax rek doo ci xalaat kon nag yéen itam liggéey bi ngeen def guddeeg bëccëg si génn ngi ca fu sëñ bi mën a nekk togg yàgg ñam yàgg ak lu mu leen digal lu mu jafe-jafe doo xalaat ne lii mënta nekk dañuy jug jug jëm ca kon dañ leen ñaar yaay ñu ngi ko seqe ñëpp yàlla neen yàlla gars yi dafa dimbale tawfeex sëñ bi laar ke yow itam ñu ngi lay sant bu baax ndax mbirum poftu ba mu amee jafe-jafe ministère bu woote na gouverneur bu woote na ba mu ma may leen génn leen ci te bàyyi moo wax Abdou Lahad mu lijjanti ko ndax moom xam na ni mu koy mën naa wax a jom ndax foofu ay kilifa fa ne yéen nag loolu moom waaye ñu ngi lay sant yow tam ndax euh, suñ si dinaa boole yow yàgg na suñ mun taxa boole waay yow te yaa ngi koy sàmm di ko jàpp lam loo xam lépp la Bachir wax jur ngi ñëwaat ci man di ma ko wax yàgg na boobu jamono El Hadj Baar la ba na gën kon boo sax yóbbu maire bi ba mu ko ba mu la tegee ci maire bi ndigal loolu la la jox te yaa kon yooyu itam ñu ngi lay ñaan bu baax li ngeen daj metti ndax dëkk bi moom daa yombut ndax boroomi sañ-sañ fi ne ak boroomi xalaat kon ko leen yërif ku leen yërif fukki at rek ya ndimbalu Sëñ Tuubaa la ak Sëñ Tuubaa ànd ci ngi lay ñaan rek ngërëmu Sëñ Tuubaa ndax ngërëmu nit ñi amul solo ndax yaakaar loolu suñu bi laa ko déggoon sax bu leen sonn ci sàkku ngërëmu bindee yi ndax neen kenn mënu ko am te ko ci sonnoon ba am koy du la jëriñ dara kon nag na ngeen fexe ba sonn ci sàkku ngërëmul yàlla yàlla mi nga xam ne bu leen gërëmee bindee fi gërëm leen te duñ ko sañ kon loolu suñ bi ko waxoon suñu bi laa ko déggoon kon loolu rek am loolu rek ci am solo kon yéen ngeen góorgóorlu góorgóorlu yi mooy xool ndigalu suñu Tuubaa bañ a indi xalaat ndax xalaat moom boo joxe si dugg du sotti surtout yoon muur yaa ngi yoon sañ na ko waaye yoon muur moom salabul ixtiyaar li suñ bi fa moo jiitu bu suñ bi xasee wax amutu xalaat kon góor ak dogo rek te xam ne Sëriñ Tuubaa moom la ma am ceerno waxoon rek ba ma ko sant kër Tuubaa gii muy jumaa ji ne ko defal ma ko sàkkiti lañ fekk mu daje geeru 14 18 ñu bari di ko décoration naa ko li Sëriñ bëgg mënta am wala dama gis mu soppi la ndigal loolu yàgg na jamono wa minhum lazina yu'zuuna nabiyya yaquluuna huwa uzun benn nopp la loolu yàgg na fi ne ko dama gis mu soppi la ndigal ndax sëñ bi xamul fi jamono toll wala xamul seng ndax kenn mënta dajale daal ndax jamono ji dafa naqari guerre bi déclaré am na bato yi ñëwatuñ kon boo amoon xaalis bi mënoo ko jël suñ saa yu nee na Cheikh Ibrahima Fati ne leen néew ma xaw ma suñ Tuubaa de waaye yéen néew ma xaw ma seng astafurlah waaye yéen xamu leen suñ Tuubaa suñ suñ Tuubaa du santaane mukk lu dul am te du ma sant mukk lu ma dul def nee na ba mu liggéeyee kër gi kër gi ma toon ak kilomètre lépp ay tontu la seng lépp. loolu mooy mbiru Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa moom la sëñ bi daa daa wax rek liggéey Sëriñ Tuubaa yomb na day fee day coono ba bàyyi la sag ba day féetewoo coono ba bàyyi la sag ba loolu rek ci ne kon nañ góorgóorlu te xam ne liggéey bi jeexagut te nit ñi sonn nañ sëñ bi yërëm na leen loolu moo tax xaaru ci kenn da ci xaarut lii ma doon wax ci waa Pouf di léegi loolu lu yomb firi la sëñ bi mu wootee ñaar fukk juróom-ñett yi tubaab bi di woote juróomi impôt nit ñi dañ leen di sonal lool ñu gàntu nanguñ ko joxe ñaar fukk juróom-ñett yi ñi nit ñi di njëkkante di ko joxe di ko joxel seen doom di ko joxel seen baay kenn ku ne jàll nga am joxe tubaab yi bañ ci jaaxle ñëw ci sëñ bi ne ko ah ñun de dañoo amul jaaxle ndax ju juróom juróom la li ñu laaj ni juróom wala juróom-ñaar la lenn la juróom juróom yi nga laaj nit ñi nanguñ ko joxe yow nga laaj ñaar fukki juróom ñett ñu koy njëkkante ba la koy jël sëñ bi nee na de lu yomb dégg na yéen de man de ñi ñi yéen li ngeen li ngeen laaj laaju leen ko ngir yàlla joxuñ leen ko ngir yàlla defalu leen ko ci ci yàlla man nag li ma leen di laaj dama leen koy laaj ngir yàlla ñu ma ko jox ngir yàlla ma leen koy defal ci yàlla am na fenn nu mu ko misaale woon ne ne leen yéen netti adduna yi dangeen a yilif nit ñi ci jëmm ma yilifi ruux yi loolu waral ba ko ñuy bëggee mu ta ba ba ndigalu sëñ ba àggee ñu nangu ko loolu moom du fi jukk sëñ Tuubaa moom la sëñ bi di waxoon rek euh, xol yi nañ tudd suñ gàttal ñun ñëpp suñ yoon néew ci kenn doxaluñ ci dara wax naa ko ni démb ma ko man mii léeg-léeg nit di la jéem a yëkkati ka jeeñ naan na liggéey mënoo ca ñàkk ma ne ko màggal goo xam dox na téeméer at mosoo caa doon dara te da nga faatu lu yàgg mooy doon dara boo jàppee bu ne nit dee jaay nga koy gëm loolu tax am dof nga kon kon suñ bi dee sant bokk taali bi ndax ni ñu wuysee moom sax yéem na ko kon ñu ngi leen di sant bu baax eh, suñ Cheikh Diop yooyu itam ñu ngi lay yóbbante ci soxna Bally ak sant ak ngërëm ci jëf ji mu def ndax yàgg na ko jëf sax waaye li ci ëpp solo mooy xam gi mu xam ne bokk Sëriñ Tuubaa moom la ci am solo mooy jëf waaye boole gi Sëriñ Tuubaa boole ci boppam loolu kenn bu kenn kenn tànn dugg soobu waaye lay jëriñee ci sëñ bi ne bi kon xam gi nga xam ne bu suñ suñ taxa santaane kenn waru ko ci jiitu ndax soxna jaar kat xam ñëpp xam nañ ne cër bi moom liggéey Sëriñ Tuubaa ko kon Sëriñ Tuubaa moom. ko ci waaye rawee rek mooy jëf kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal itam ci liggéey bii muy liggéey Sëriñ Tuubaa di ci liggéey Soxna Jaara yàlla na ko ci Sëriñ Tuubaa dimbale ba fa mu ko bëgg yóbbu mu àgg fa te xam ne sëriñ moom la mu waxoon lam ci delli woon dana bokk na ci njariñil addiya dana fekk fa dara mu def fa dana fekk fa nekk mu bari ko dana fekk fa lu bari fa lu bari nekk mu barke ko kon nag lu ci waay jëf na nga xam ne sababu nga ko jëfal Sëñ Tuubaa moom am na ñëwul bor daa ma pay te màggal Tuubaa gi weesu rek ci li ñu commandoon mu jëm si ci réew mi ci ay lekk mu war a dem ay ñaari weer màggal gi daa jël yóbbaale lépp te nit ñi jàpp nañ màggal gi fii fi mu toll ci digg nawet dana ci feeñ may leen da ngeen xamu Sëñ Tuubaa màggalu corona bi firnde la ci may leen màggal Tuubaa gi mooy dàq màggal gu fi mas jaar ñëpp maase nañ ci ci ne màggat bi fu mas jaar géew ko dàq loolu moom du ci ñoon sëñ Tuubaa la da ko jaayante borom ba suñu suñu borom fay ko ku ci ne it bërigum resin bi daa daa wax bërigum mbarsal la rek boo ca tegee sa loxo ma dem boo ca dugg sa loxo mu dem kon nag yàlla nañu sëñ Tuubaa dimbali ba suñu xol bi nangu te ñu dëppoog suñu gëm-gëm nag dë dëppoog suñu pëstéef ndax sëñ Tuubaa kat daana wax ne euh, kenn mënumaa nax ndax nee na yàlla kenn mënu ko ndax moo moo sàkk ay ndax waaye suñu tubaab kenn mënu ko wax kon li ñuy wax ci suñu làmb yi nay na ci suñu xol yi bu dee mbiru àdduna mbiru àdduna waaye sa digg suñu tubaab moom loo ci wax nay doon dëgg ci sa biir xol boo ko defu ci sa biir xol kat wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun suñ borom daan la génne weer la ndax suñu tubaab kenn mënu ko ndax ndax liggéey bii da ñor lool te dajee son lool kenn mënu ko yàq moo tax waxtu ne dama naan leen bu ñu naan diw day jaay day day jaay yoon yi maa ngi leen yoon yi kenn mënu ko jaay ku ko jaay doo lekk njëg gi kon nañ gën góor góorgóorlu te yéen ñi ne ci liggéey bi lu agsi ci seen loxo agsi na ci ñu tax ndax loolu la jub ndax ba ma ba ma ko sëñ bi joxe sëñ mën na koo def ci compte boppam ne bu ngeen soxlaa jël si ko wala man mii mu ko joxe ma ubbi compte bu ngeen soxlaa ñëw jël si ko ci man waaye bëgg mu bëgg mu yomb ci nit ñi ak leer ci nit ñi. Hmm. moo tax ñu def ko benn compte boo xam ne yéen ñii yéen ñi nga xam ne ñëpp xam nañ ne lu ci dugg lu leer lay doon ba ba ba liggéey bi jeex ba liggéey bi jeexee it ngeen jëbbaal si liggéey kenn dem dellu ci liggéeyam. noonu képp li ma njëkkoon wax laa taf'alu shay'an bi ghayri izni fal iznu shartun fii xabari sha'ni hmm. ndax bi sëriñ bi joxee ndigal li ba boolema ak ñoom bañ defee waxtaan ba noppi. man dama leen faa bàyyi dem sama kër mais suñu ébi bu comme yaay kilifa jotaay bi kon yéen ngeen wéyal liggéey bi ñoom bañ waxtaanee seen biir ba noppi nag ñu dem ci bi laaj ko autour ngir nu ñu tuddee kuréel gi ñu taxawal ngir xeet li bokki taalibe yi ci lee ñu nekk sëriñ bi jël téere bi bayit ba mu njëkk jot daan leen may itam tànn loo ngeen waaye damay tànn loo suñu tubaab daal leen daal leen tànn junnatun liman nazabahu loolu ko nexam dañuy firi boo demee ci boo demee ci mat la foofu wa jannatan li saalikin mari muridi wa junnatan han haatikin muridi kon mooy junn junn boobu lay firi mooy pakk pakk la ko la ko di wax mooy fegukaay rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala